Cheikh Moustapha santal dayab cante yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Moustapha Cheikh te ka nang nelaw yaa Moustapha ñépp mokk nañ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 ña daa xiiru ak ñay mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat seen gémmiñ yi nañ ko Mustafa ña daa jabar ña daa xaatim ak ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi Mustafa si te weytoo madru yi tuub nañ ci yow bu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 la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma ku dib dof na tuug ni xil wa dew fekk Mustafa Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaak siqiya cuuj kulluhum borom gamb baa moom lépp naaw tal num Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardi lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi Musa bi Mustafa lu jin bambay njaag te mooy njin fa Mustafa ku fay nag jikko war naa Cheikh Moustapha géejum ngeneel waaju ak si duy ku mar bay xondooj yaa tey ma ngay wal fa Moustapha maa ngi wër Tuuba ba tumay nu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ci seyxi Moustapha ma nga yeesalaa Tuuba bi tajdiidi diinihi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 بعد باطن عنايته قبل الولاية مستوى كلي مباكي واكو كيك لوغان دام ديكر نيم ña doon kaangi kankaan ba koleeram fa mustawa kuloo wasra boo dex gaangi fengat to dootu ndaay sëriñ bi di barul juudi nuur leen fa mustawa wala istawil bara عذب سرابه وملح أجاج بالخياس نت مصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يا شيخ أمر مصطفى